aynin bi mahrifati la ilaha illa allahu sayyidina muhammadan rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam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 Modou maa ngi lay ziar. Babacar delloo ziar. maa am nga jàmm. sëñ Cissé maa ngi lay ziar. maa ngi lay delloo ziar baax sëñ Babacar. tey de parcelle laa la fekk ci ngénte Serigne Ndiaye. waaw xam nga waa parcelle ak Serigne Cissé àddunaa ko xam Serigne Ndiaye sunu wóllëre sunu xarit euh, doon wat doomam ne daa bëgg ma teew fa tuddal ko doom ja. loolu moo waral sunu teewaay fii ci parcelle tey. Mhm. nga teew sa mbër teew parce que gis nañ fi le roi des arènes Modou mu teew. waaw loolu moom euh, xañ na dama ñëw nu fekkante fi sama mbër waaw loolu nga wax moom dëgg la fekkante nañ fi wax dëgg yàlla fekkante nañ fi waaw waaw. <laughs> Euh, tey tey yow faw ma laaj la ci li Modou jublu parce que ku ne gis na fan yi mu génn waxante ak Ama xamal ko ne du ma ñeexum ñebe. Mhm. waaw. Euh, lu ngeen di pare. li ñuy pare man àdduna xam nañ ma ci Modou. xam nañ ma ci samay dogal te dogal yi dinaa ko gën a yaatal ak yow wax la ni combat bi di demee ak la cay xew ak lépp dinaa la ko wax. incha allah dinaa la may loolu ci daraja yi Serigne Babacar Sy. kañ la loolu. du yàgg dara. di ma woo ma ñëw nga ma combat bi ni ma wax la combat bi ni muy demee ak la muy duré ak lépp dinaa la ko wax incha allah ci inbox. ci Equivox. incha allah noo gisee Babacar ak Equivox. Babacar lépp rafet na wax dëgg yàlla ndax yow ñëpp rafetlu nañ la ci sa ci sa dal. ci sa euh, euh, méthode bi ngay liggéeyee kon loolu euh, ñaanal rek lañ ciy def borom bi gën laa taxaw defal sutura defal ko tele bi nga nekk defal ko mboolem ñoo fa nekk ak caméraman yeeg ñoom ñëpp yàlla yàlla defal leen ko ci barke sëñ Babacar. kontaan naa ci maa gën a kontaan Lo mu koy tooñ léegi ne dama Serigne Ndiaye mbër la woon man ma subaa xam loolu mbër la woon. mbër la woon. lu tax mu bàyyi bëri ba yaa ko tere wala. non non moom moo bàyyil boppam rek. moom moo ah. la wala jigéen. bébé Nafissatou Samb. Nafissatou Samb teewaayu Modou Lo lu mu def ci yow. xanaa kontaan rek waaw kontaan. nga lii soxna si wax dégg nga Modou li mu wax Serigne Cissé ñi wax ci yow ñëpp teew tey parcelle ngir yow ak sa soxna ak bébé bi yàlla na dund am ndey ak bàyyi loo yëg. waaw ah, dellu sant yàlla dellu santaat suñu wañaari waajur. ñun munuñu dara ay ndaw lañ rek lépp lu ñu rek suñu waajur yi ñooñ tette ba ñu exhibir dañu ñaan yàlla yàlla nañu yàlla bàyyi ci suñ kanam ba ci kanam a kanam di ñaanal yàlla ñi nga xam ne fekke woon nañ sama ngénte taaw bi tañ ñu dëddu yàlla na yàlla seral seen wax ku mel ni baay Gora Lo ku mel ni per Assane Diko ku mel ni imaam Ndiaye ku mel ni Mamadou Ndiaye ku mel ni Pa Faye ñooñu dañ leen di jooy ba léegi suñu paa koñ dañoo teel a dëddu ci vingt bi nañ leen ñaanal fañ tëdd yàlla na yàlla seral seen ya di dellu di santaat di gërëm suma yaayu bopp muy soxna Ngone Fall kooku il faut ma sant ko gërëm ko kooku lépp moom la. ànd ak ñun dafa metti xale jigéen ñi dañuy daw suñ ginnaaw suba ak ngoon. Serigne Ndiaye dafa siiw ñëpp a ko xam ndax mu. waaw xale jigéen dañuy daw suba ak ngoon waaw ku fiir sax doo mën a nekk ak ñun mais dañuy sant yàlla bu baax a baax a baax a baax di ko ñaanal yàlla njabootam gi yàlla na fekkee seen njëriñ yàlla na leen uuf ak suma sama xol di ko ñaanal. waaw. kontaan ci yow. jërëjëf sëñ Babacar man tamit kontaan naa ci yow baax a baax. sëñ Babacar ñu ngi lay delloo ziar. tey defe naa kii ngénte moom yàgg ngeen kenn ngeen. waaw waaw kenn lañ waaw vraiment suñu doomu ndey suñu xarit Serigne Ndiaye moo xew la tey vraiment di ko ñaanal di ko ñaanal doom bi xam nga màggati am ndey ak baay quoi yàlla may gudd fan ak wér kontaan nañ ci moom quoi monsieur Serigne Ndiaye moom wax dëgg yàlla dañuy bàyyi suñu lépp teewal ko ndax ku mën sonn si nit la ko boo ne Serigne Ndiaye da nga naan Ibou Laye ne Papis ñoom ñëpp Papis yow defe naa ne itam Serigne Ndiaye moom yi xam nañ ko mais naa ci ñi ko gën a xam nga war a bokk loolu dafa leer kooku mag moom dañuy nduru ñaar mais kenn lañ. kenn ngeen wallaahi lazim moom la moom magam bi fekk fii léegi sama wa sama waay la quoi. sama sama frère la dañoo dépassé sax loolu wallaahi lazim mhm. sa Ndiaye lu ko nit ñëpp ñaan ba ci Moodu lu ko ñëpp ñaan su bañee su ma ko ñaanee may ma ko mhm. wallaahi lazim sama waay la. tey muy tudd doomam moo du teew yéen ñëpp ngeen teew lan moo indi fraternité boobu ci seen diggante maanaam àndoo boobu bokk ndey bi bokk baay bi lu ko lu ko dëgëral laaj naa ko léegi Ibou Laye ah, waaw que ay frère lañ mooy li ma la wax xam tey ji sa frère bu xewlee waxuma la jiitu sax waaye yow yaa fay nekk waxuma la tey démb ba léegi man moom ñoo nekk xam nga kon nekkul ay xarit wala dara sama frère la lu mu xewle Serigne Ndiaye dafa mën a sonn ci nit billaahi wallaahi bari na xam nga xët xët xët mais dafa bañ ku ko yeb rek mais yàlla seede na ni ci ñuy ànd ak Modou ñëpp sama baat ci kaw amul ku ci gën a mën a sonn ci nit Serigne Ndiaye sama baat ci kaw ku xewle xamewul kii xamewul kee billaahi wallaahi ak ci loo xewle nag ci safaan muy ci banneex ci lépp ci ñi fay jiitul ay bokk ci ñuy ànd ak Modou ñëpp laa wax nag li mu lu leer laa lay wax moo ci gën a mën a sonn ci nit wa tax li mu am nii yëpp mu am ko yàlla na ko yàlla fay xolam barki alxuraan nit ku baax la. non Serigne Ndiaye li may wax si moom mooy sama gaañ la sama rak la te ku wax Serigne Ndiaye wax Modou Lo dañ naan un plus un est égal deux dëgg ñu ne Modou muy tuus Serigne Ndiaye du ko soow mu doonum coow kon moom moom Serigne Ndiaye dëmb la Serigne Ndiaye lépp fay fekk bi dëxeen bi tàng moo tax man ko Modou bëri ba am licence te yaa di référence te labali nga fas baraw defante kat la de. dëggal ma la ama xam nga lan la. waaw 33 10 la woto wéy la a ak jaay sa doo tàngul bëriwul option. yaa wax lii. dëggam mu neel maa waxati lii. man luwaat ci nga ne 33 la. nee naa la yàgg naa wax lu Modou Lo bëree man maa koy freestyle defar ko ci diset ak photo ak naan si noto nee la ama lu Pikine bax parcelle dina ko ñeer ci fraction de seconde te ama nee naa ko 33 10 la woto wéy mun ak jaay sa doo tàngul option. Modou iPhone 12 Pro Max la nga lu mu doon la ngay laajte gos du rajo yi dem la jërëjëf jàmm yu bokkul xëdd muy xiiru yaa ma gën a nëw El Hadj Diouf moom. yow sa xiir bi ragalu ngeen ko amaa ne na ma fi yaabi ku ci bokkul xiir gi da dal de. yow amaa yorul xiir. lu mu yor. yor xiir. lu mu yor yéen loolu loolu lay xiir. lan la yor xam nga spaghetti. loolu ku mu da lay dagg spaghetti. gis nga amaa dañ koy tey dañ la ñoom xam nañ ma bu baax Pikine koñ cosaan fa la dëgg Xaarim Sarr man maa ko doon ngémb bu doon ànd ak Ama lu ma lay wax lu leer laa lay wax de waxantu ma de ay année laa la boobu Ama sa nekk lu bëri xoolal ay zil ba tey barki alxuraan ñoo bokkoon may ga bu ñu doon reeree maa ngi lang si pas saar Sarr ñoom xam nañ ma seen koñ sama kaarab bi dafa doon faran Ama booy bu ndaw ak doomu ndeyam Pablaay sama xarit lu leer laa lay wax xam naa Ama bu baax xam naa Modou bu baax mais lu ci Modou na nekkul ci Ama Ama garaawul quoi na jàngiwaat xam nga day jàngiwaat ëpp leen yow Modou Lô il lutte on contrôle même la vitesse du vent yow nee naa ragal du jéggi croisement 22 te Ama buñ ko seqee ci géew ñamu ko ay une deux te ku ruux du jéggi fii xarañ loo moom moom public bii jamais 203 te Ama moom mënuñu tere doon roi lamb ja ko pare ah, moom nee na maanaam roi am leer na ko na ñi moom amaat ne ko bu ñu woowee ci vitesse ñu woo ko ci long champ te bu ñu neexee dañuy recruter ba 100 lu Pikine baax nee naa la parcelle day xam bu matataal daal di boyal bi géew Ama da yoo xam nga Modou Lo yow. déedéet moo tax ma la ko loo lamb ji loo téléphone sax bu ñu la wooyee boo décroché da nga naan allo sapeur bu ñu amul loo duñu fay lakk sones bu amul loo kër duñu toog bay taal tel lak loola boo demee gëlooy fekk loo ma war a sëriñ Tuubaa jala jala loo isa kama loo mën a ko ama teel ci Modou Lo doomu góor a loo moo waral teewaay dégg naa Modou di ko tooñ léegi dana ne moom am ah, Serigne Ndiaye mbër la woon quoi ah mbër la woon war a de <laughs> jot naa takk ngemb li kon Sëñ Ndiaye jox naa tax ngembul kay. du ko bàyyi lool Sëñ de. Ah. tey defe naa dégg nga li ñu wax sa xarit koo xam ne ku ko xam-xam la muy Serigne Ndiaye muy tudd doomam nga ñëw ci tey loo yëg. waaw li may wax Serigne Ndiaye moom su ma rakk maag moom xam nga maag moom dama jàpp comme maag moom ñoo bokk ndey baay ba tax na bisam suñu bis la xam nga bisam moom suñu bis la di ñaan rek am bébé Bintu tey yàlla màggal ko xam nga def ko magum lislaam ba ñuy toogaat comme jotaay bi tey de ko muur di ko may muy sëy incha allah tey fekk ko tal ko. yaa ngi Serigne Ndiaye ànd bi kañ la. non loolu yàgg na du tey macha allah loolu yàgg na du tey. yàgg na tey mënu ko wax sax boobu avant ñoo bëri la vraiment wax dëgg yàlla moom mbër la woon quoi. daan bëri mbër la woon mbër la woon <laughs> vraiment tey liñ la fi ñaanal liñ la fi ñaanal dégg Imam Touré ak koñ bi yëpp ñaanal la wax ci yow pour waa xale parcelle wala waa Sénégal roy la lool loolu boo ko déggee en tant que jeune tamit looy waxaat tey jeunes yi. waa di am contentement bu baax a baax rek di wax li mu wax noonu la parce que nit lu mu nekk lu ne ngay def jul ful la jom fit ak fayda li ci des yàlla mooy motali xam nga di ñaan Sénégal jàmm yàgg fii xam nga kontaan nañ daal. am na loo xam ne tamit Sénégal dañ ko rafetlu parce que man dama ko jot am ay wax kan garab bi Pape Bouba Diop génnee àddina ñu ne Modou Lo dem na këram jaale ji ko ñu bëri rafetlu ko Modou lu muy wax ci loolu ak lan lay waxat ci Pape Bouba Diop boobu génne àddina. waaw waaw Pape Bouba Diop dañ koy yàlla defal ko aljana firdawsi xam nga yàlla xaaree ko aljana yu gën a kawe vraiment Pape Bouba Diop c'est international xam nga Sénégal yëpp a ko bokkoon xam nga ba tax na tey dama fa dem comme présenté comme bër yëpp ba pare dafa am benn sërëm bi nga xam ne Fatou Diop moom it sama jigéen la xam nga tàngo yëpp daal moom mu yóbbul ma dem jaay dañ ko ñaar rek yàlla xare ko aljana moom incha allah ak ñëpp ñu génn àdduna moom incha allah. lamb ji ñu aj ni mu tëw a àjjeeku en tant que ñëp des arènes ñëpp nañ da ngaa war a wax. waaw gars yi ci ngi ciy ñu ngi ciy waaj dara incha allah yow la ñu wax yow. gars yi ñu ngi ciy waaj. sànq rek yow loo ciy waaj. sànq rek ñu ngi ñu ngi déggante ñun bëri suñu biir maa ngi dégg nag Gris Bordeaux mooy président des lutteurs en activité ah. da ngeen a bëgg a dox doxu ñaxtu ñu mais ñu daal incha allah. pour am lu ñu wàññi bu soobee